ma leen jaay fal ma fal ma leen jaay fal ma leen jaay day way boppam la jënd naa ñànku yow xanaa la jekk mooy ñànku boppam xanaa gisoo ñànku yow boo xamoon ñànku doo la jekk mooy ñànku ñànku dafa ko mag lay kekkantoo ñànku bëggu jàng booy rangu soot ñi nee nañ dafa doog ñànku kokkali ku ne

maa ko moom yéen a ko moom xoolal da nga def point sénégal 5 point com. donc information yu leer xoolal. daa war a defar fii wóor fii mu naan jaan. waaye yow bala nga xay élément ji doo wax yow ñu ngi la génne amoo foo dëkk lu feeyoon ci ci kii yow yow war naa la jàpp nga yow yow doo yow da nga laa génne yow ma nañ dem rek te leeral daal déglu fi ma wax nii fu la génnee boo demee luñ la wax def ka luñ la tele bàyyi ka lo foo duggee ci lus boo fu may sat ci ndox daay rek lekkal tuuti lu yem sinon foo sa papa mere da lay génnee calcul. alhamdulilah. woo woo woo. rek maa génnee. ndayer yow <laughs> xam nga xam nga la ma walay ci yow yi chaque jour ah chaque jour si dee day foon yow doo ko bàyyi xel loolu baaxul ba tey naa la ko ba tey boo may dee da nga naa man man dinaa xam ne ko wa mm. waaw yow dama nga xamal ma xanaa xamoo ni xanaa lu tax ma xanaa lu tax feere la xam nga way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 waaye boobu moo tax moo tax moom laa wayal nii. yow maa ngi dugg loolu yow bokk. déedéet dama lay wayal waaye bu ko faa ko xelal quoi ndax amee dimbali bu ko faa dem woo ko digal ko. waaw ndax fu ma ne dimbali. loo xoo xoo. man maa wóor yéen ma maa si xool koor gi. waaw man dama laa yélam. imaam imaam kii imaam mi ngi wax imaam koor bu waraat si télé bi ilan lii ay sall boy bi Fass Bouye ah Wul Fall Wul Fall waaw Wul Fall ne weeru koor kenn wul see wax ah Wul Fall nag moom te moom foñe na foñe na koor gi de kenn wul cee kenn wul cee woo léegi kenn wul cee wax léegi léegi ni ñuy ni ñuy def mooy yow Fass Wul Fall nee na dañuy ba guddi jot te moom ma ma koy lom fii muy toog xàll waxtaanam fi moom moom moom moom Modou Fall fii laa koy lom fii ci bopp koñu fii mu xàll waxtaanam fas kanamam ASP la. asalaamaaleykum. lan ngay lan ngay léemu fi. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. ah. kii way ndaaya ndaaya sama la la ndaaya sama la la ah waa sa koñ la am xumbal ah ndaaya sa kaay ji lay wax ndaaya ala fa leew na ndaaya te lii dugal ko fa mu nekk moo génn nga doog ko utiliser waaw génn ma de lan est-ce que la waaw déglu fii la wax ndaaya kana loo garaawul naa mel mel yoon ngay laal bu laal la. yow xanaa waa Jamra dénku na la koor gi. waaw waaye waaye waaye waaye mu laal. lii kenn tëlewu ko koor gi. lii alal lii tëlewu tëlewu waa Jamra tëlewul lii. lii tële lii bokk bàyyi ko rek gërëm ba bàyyi ko rek. waxal lu mu fi kii sama xarit la. vañenam bi. dafa soxol. vañenam bi dafa iñaan.

xool nii la ko def nii génnal ma bul fi nelaw di dañuy ñibbi léegi oo waxal ma ne dégg ma ne ko ko génne laayaan mi sama nawle la wala ko génne famille ma ne ko du ma fay du ma la fayu ma ne ko sama xarit la ma ne ko ka am kël nday am nga kël bay mhm. man ka nañ dem su am nga xalit sun sun sun sama papa fi bu fi ñëwee yagul waye neeg bu ñun ñëpp xaj nañ ko tax jël saagam indi ko fu ñu ñëw ñu nekk ci neeg fi ñu fanaan man ak mom ak faa dikam ñu bokk laal te yow sama tànta ngeen bokk benn ni ngeen bokk laal bi ci kaw man ko sama papa boobu loolu ko bañ waaw jërëjëf dugal saag ci bi eh eh eh rek la nga dugal saag bi eh, ñanku gis nga boy wax del déglu sa bop bala nga ko génné say biir wax wax nga wax ju am importance ko am kër ndey am na kër baay. waaw na dem kër baay. waaw fi. mu fekk ji baayam fu mu nekk mu dem dëkk ak moom. ñaanku man lu ma yàlla teg rek muy yow mii dama doy sëkk du ma si bool di héberger ab quinze man. ki da ngay xam naa ko ndax. Oh, oh, man loolu xew bañ. looy bañ. xew moo tax nga koy def. ma ngi naan ngay jëfandikoo lu bon. ah xam nga ni kon lu bon ngay jëfandikoo. man nag ko bon du ma ko héberger moo tax ngay jug ñibbi. jox ko faafu dafa faafu bàyyi. waaye saag bi saag bu ko laal. waaw kon jëlal sa saag nga génn. faafu dafa laal faafa ah, hmm. bu nekkoon lu bon ñu sànni ko. Hmm. du baax kenn day day la tee day la. waaye kii bon daa xotteeku. te yére bu xotteeku ba kenn mënatu koo ñëw da ngay obligé sànni ko loolu moo tax. bu fekkee moom yére boobu rek moo fa ne. Hmm. dañ koy ñaf ñafal. waa kii nag am na beneen yére xam nga la mooy beneen yére bi. moom mu dem xooli moroomu solaar mi fu nekk fu ñuy fréquenté mu dem ànd ak ñoom. bu boobaa day gën a yàqu loolu baaxul loolu solution. ku tël ku tël la mën a ànd ak. déedéet fay fay ñi ñi teewul ñooy jëmbalu ñi te. ñaanku gis nga ñi ngay wax nii. am dugal saag tamit. déedéet dugal saag bi du dugg. ñaanku man xalaatuma sama kër gii lu ma si am ab néew sama néew xet gu neex lu nga xam ne yàlla may na ma ko ma nangu ko accepté naa ko. waaw mooy fexe naa nga nekk si suuf tëdd yow ak ak ak dikkam maag sa tante nekk si kaw laal bi nu ma mënoon noon nekkee à l'aise sax mënatuma ko ndax yaa dikkoon. mais loolu ngay wax. yow xam naa li ngay bañ yëpp yow kii. Hmm. da nga kaa ak sa jabar. kii du ko laal. kii xam naa ko xam ko tooy xoolul sa eh. kii kii bàyyi na fala voilà. ñëpp laa bàyyi bàyyi na ñëpp. Eh, biteel bii boo ma waxoon yow bàyyi nga ko du tax ma héberger sama néeg bii ndax yow yaay génn kër gi si nii baasi naa mooy nga ma toog. wala yow nga génn kër gi jàmm na ñooy ndax bul génn. waaw léegi may waxtaan ak yow su yëg ak sànq. allez-y. ah waaw. yàlla. Hmm. lan si mbokk xam naa ko. wala ko sa mbokk fonkal. waaye moom du dem ci ay mbokk. man mbokkam laa. dëkkandoo nga. waaw yeneen ci bi ne mbokk fas-fas moo gën a mbokk fas-fas moo gën a dëggal delet ndax ak mbokk dëkkandoo boo gaañoo. balaa sa mbokk di ñëw sa dëkkandoo yi ñooy njëkk ñëw kii sa dëkkandoo la yent bi nee demo na ba yaakaar ni sax nit bu gaañoo ay dëkkandoo bi ñoo koy ñoo koy doon kii suñ dëkkandoo la tey yow jullit nga ci weeru koor lañ nekk jàppal kii song ko lu xam nga bëgg bu ma bëgg yenent bi moo tax nga may jéem a convaincre si yenent bi waye ki duma ko héberger ndaayaan déglu xam nga ñaan njekk boobu ngay def lam moo tax toogoo si sa tante bo sa bàjjen bo nga ñaan gan njekk mu bayal nga tok ci kër ga xam nga lay jale lu xax Hmm? xam nga luñ jotee. Hmm. lu ma ko laa illah waxal waxal waxal waxal. fool dee ak a fool dee. day yàlla bu la kii la solaay day fool te naa xamataay. nag comme déewoon xam nga léegi nag. léegi xam nga man fay fanaan. xam nga lan la. ñaa lenn mun nan naa leen ko. mooy waañ bi guddi kenn du fa nekk. dinaa dem si fii na Ndiaye jëndal leen foofu ci si rido peese yi. warale leen ko si waañ bi nga nekk fa yàgg moom ngeen fanaan fa néeg bii du ngeen fi dugg moom. bàyyi ko rek nit doo ko héberger fay di ko indil leneen problème bàyyi ko mu dëkk. wax nga ko dus bi day fat wax naa ko yow. Hmm. te wax naa ko yaa koy fat mën naa su su daa suunee benn yoon laay dem. añu mbar maaf. bu ko jëlee nga nga nga ka moo koy def. kan kan mooy Leef Naar. yow. ah man kon da ngaa bëgg a wax man sama biir day daw fu mu toll. doo ko ci biir doo ko ci biir génn. génn ma da ngay ñuus la ba nga dul nga génn ndax ab eh. gees maa la amoo doole fu mu toll eh. man maa la gën a bàkk perek man maa fi nekk di nooyal mais ëppoo ma fit yow laal may ma. jégal nga génn. génn mu kër gi génn mu fay génn mu nii. eh fay eh, eh fay. ba joxaleel ma ko foofu benn mbuusi bisaab waay <laughs> waay déet waay